di jiital ci nuyoo bi sous euh, sous di ko sant di ko gërëm parce que bi li amee moom la docteur bi daal di woo wax ko ko fi ma ko woowee mu jël matukaayam yëpp woo sapeur woo service d'hygiène police te moo leen fi jiitu encore kon waa zone nord moom ñu ngi sant suuf seen sous préfet bu baax a baax a baax di ko gërëm tangam luwul dara ci quartier ci zone nord dama doon añ rek doomu délégué de quartier bi ñëw ne ma kaay sama maam ma ne ko maa jàmm mu ne ma euh, Ibra Kane moo nekk ci jàkka ja ñu yëngul bougé wu mu ne nga ñëw xool ma jóg saa si sol sama yére après bu ñëw xool ko il était déjà décédé projet après automatiquement moom def fee chef ma naka laa war a def bon ba vous voyez nous avons un ma sapeur un préfet avec un service d'hygiène nous avons ma la ñu woowee ñëw nañu ci préfet que je remercie de passage ñëw nañu on a pris le corps effectivement j'ai constaté qu'il est décédé on a pris le corps on a fait toutes les dispositions possibles daal léegi dugal nañ ko vers 14 heures nous ne fi fekk ci euh, euh, euh, ko ñun ci suñu service d'hygiène mais également ak police bu effectivement donc nit toutes les dispositions manam wa service d'hygiène pomper nous pomper désinfecter. ci la ñu ko dugalee ci euh, oto bi daal di ko yóbbu. waaw mag la daanaka am na juróom ñaari fukki at ak lu tegal ñu ngi naan juróom ñaar fukki at ak euh, juróom euh, soxnaam gis nañ ko léegi daje nañu ak moom am na lu mu ci wax waaye mag la woon daal tey ci suba la génn. demoon dëkk ba ñibbisi euh, donc vers 14 heures la ñu ko découvrir fii ci esplanade bu mosquée euh, dinañu demander au chef de au délégué de quartier pour que nous sécuriser en attendant mhm. que ñuy am loo l'air l'air par rapport au résultat waaw wax fa dëgg que nag euh, loolu moom effectivement nekkoon na jafe fait, ouais peut-être man dama peut-être défaut de coordination là à leur niveau euh, di ñaan rek peut-être ñu gën leen dooleel ci walu wowo dolel infirmier chef de poste ak euh, ñi nga xamantene ñoy intervenir ci secteur bobu muy euh, service d'hygiène ak sapeur pompier ñu doté len de suffisamment de moyens pour que cas yu melni bu amé ñu mëna ko jël en ñu mëna ko jël en compte très rapidement